jërë ngeen jëf mbokk yi juróom-ñeenti waxtu tegal na fii rek euh, ñu dalal leen beneen yoon si si Paradise TV euh, ànd ak yéen si xibaar yi si kàllaama wolof ngeen àndal seeg seen mbokk Aliou Fall euh, mbokk yi gannaaw nuyoo bi rek ñu ànd ak yéen si boppi xibaar yi. article si dimbali European Union ngénte na projet boo xam ne dafa jóg pour jàppale nit ñi ci seen axa ak yelleef. juróom-ñeenti fukki nit ñoo xam ne rek ay daw làqu lañ ah, bañ nañoo wàcca lii di gaal gi dañu nag dañ leen forcé ak lii di tiyagas ak ay bal si tàggat yaram Brazil dóor na Cameroun benn bal si dara si match xaritoo si match boobu nag ah, Brazil ñàkk nañ seen capitaine bi si gaañu muy Neema si xibaari bitim réew président Donald Trump laaj nañ ko ndax kii di doom doomi buuri Saudi am na loxo si faatu kii di Jamal gi jërë ngeen jëf mbokk yi gannaaw boppi xibaar yi ñu ànd ak yéen si uh, yaatal gi article 19 uh, West Africa ànd seeg uh, ndimbali si si ndimbal European Union si alarba bi ngénte nañ projet bi ñu tuddee dooleel lii di àq ak yelleefu doomi aadama te lii nag dina jóg pour jàppale kuréel boo xam ne ñu ngi ko sos si néegu député yi ñoo xam ko si parliamentary subcommittee on human rights ak mbootaay boo xam ne moom mooy seytu wàllum ab laago yi fii si réew mi ak naataange ah, si eh, nguur bi fi newoon ca Banjul ah, lii nag ah, suñ naatango bi wax nañu ne ngénte bi li tax mu jóg rek mooy pour rek yëgal lii di nguur gi ak seen i naatango bokk na si sade lii di di xibaar yi ak askan bi yëpp pour ñu xam li xam ne nag lañ yaakaar si projet boo xam ne nag bi su siñ liñ cee am ak benn million si dalasi su ko xayma si àll ah, si euro dem na ba ñeenti téeméeri junne xaalis bi nag ah, li ko tax a jóg mooy ah, mbir boo xam ne ka liggéey ñaari at la loo xam ne nag dafa ñëw pour gis ne ak ak yelefu nit ñi yu fi xew si ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne nag kii di former président Jammeh loolu la fi nekkoon li sa tax na ba ñu génne ko muy si office bi muy si élection yi def si atum 2016 wécceeku bu am si nguur bi si Gambia léegi nag yoon la pour gis ne mu rataxal euh, diggante boo xam ne nag euh, Gambie ak yeneen réew te nag euh, mooy nag def liggéey yoo xam ne dooleel buntum liggéeykat yi nag mooy lii di wécci luwaay yi ak yu demee noonu pour de gis ne nag démocratie taxaw na fi ak lii di àq ak yelleefu doomi aadama yi ñu mun ko fanxa si nguur gi Fatou Jagne Senghor koo xam ne nag moom mooy regional director bu article 19 moom daal wax na ne projet bi daal leeral na mbir boo xam ne nag ñoom si loolu la ñoo yëngatu projet bi dina taxaw gis ne mu jàppale nit ñi ah, si seen i xam-xam ba pare nit ñoo xam ne nag ñoom ñoo amoon ah, li loraange ah, si former régime bi dinañ ñu jàppale leen te nag kuréel boo xam ne nag moom mooy saytu ñoo xam ne nag ñoom ñoo am lii di ay loraange si nguur boobu noonu pour gis leen rek ñoom tam seen taxawaay ñu jox leen pe nag dinañ gis loi boo xam ne nag dina taxaw pour jàppale ab lago yi ak ñoo xam ne nag ñoom ñooy taxaw pour xeexal nit ñi seen ax ak ak yelleef ñoom tam euh, dinañ leen jox seen axa ba pare nag mbir moo xam ne nag toroxal doomi aadama yu yëpp mbir la boo xam ne nag euh, dinañ ko saytu Eh, ñu continuer rek ak xibaar yi eh, mbootaay bi ñu ooyee Africans Rising for Peace and Dignity eh, si alarba bi rek ñoom tam am nañ ab waxtaan ak mbootaay yoo xam ne nag ñoom ñooy taxawal di xeexal nit ñi seen yelleef ak àq lii nag mbir la boo xam ne nag waxtaan bi pour ñu xamal leen si mbir boo xam ne nag mooy gëstu boo xam ne ñu ngi koy def lii di sartay réew mi li nag mu ngi xew tey fii ci si xooli naana bi wataan bi nag li ko tax a jóg rek mooy pour xelal wala sa jàngal ah, kuréel yi ñoom seen taxawaay fan la war a toll si ah, gëstu boo xam ne ñu ngi def lii di sartay réew mi. sandika tabu amon ci atum 2016 ci weeru décembre juróol na nag njiit bu ees gannaaw bi nga xam ne nag Adama Barrow ñoom nag al daal di woon nañ jël Gambia yaakaar yi doomi réew mi amoon nak bari woon na lool bokkoon na ci yaakaar yi gestu bi nga xam ne lañ waroon def ci luwaay réewi Gambia pour gis ne seppi nañ luwaa yi nga xam ne nag sàmmuñ ah ak yelleefi doomu aadama ñu ko ci luwaa réewi Gambia kuréel di constitutional review commission gannaaw bi nga xam ne ñoom ñu ngi leen sosoon ci ndoori ni at bi ñoom nag ñu ngi ne ñu gestu waa luwaay yi nga xam ne nag sàmmuñ ah ak yelleefi doomu aadama ñu génnee ko ci luwaayi réewi Gambia waaye nag lu jar a mooy ndax doomi réewi Gambia ñoom nag xam nañ ne am solo bi nga xam ne boobu la gestu luwaayi réewi Gambia am solo Boniface Swangi politique and human rights activist la moom nag gannaaw bi mu doon gaaral kaay kaddu wax na ne li nga xam ne nag mooy luwaa yi nga xam ne sàmmuñ ax ak yelleefi doomu adama nag war na nañoo fexe pour gis ne génnee nañ ko te it luwaa bi nga xam ne boobu lañ war a def ci réewi Gambia nag war naa nekk luwaa boo xam ne dina sàmm ax ak yelleefi doomu aadama te it du farfarlu ci benn diine Lala Touré moom mi nga xam ne nag mu ngi teewal kuréel bi ñu ooyee African Racine moom nag wax na ne li nga xam ne nag mooy gestu luwaa yi nga xam ne luwaa yi bon la si réewi Gambia nag am na solo bu baax a baax ñu ne luwaa yi réewi Gambia nag dina jàppale réewi Gambia pour gis ne ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk njiiti réewi Gambia nag dinañ doxal doxalin bi nga xam ne nag jugee na ci luwaa yi te itamit dina jàppale ndaw yi ñoom it ñu mën a bokk ci lépp loo xam ne nag ay dogal yi nga xam ne nag ñu ngi koy def ci réewi Gambia ñu ne lii nag dina wàññi xaajaloo te itamit dina tax képp koo xam ne nag judum réewi Gambia Gambia la nag moom it dina yéeg am solo bi nga xam ne eh, boobu la moom it am solo ci réewi Gambia te li nag dina ubbil bunta ndaw yi tamit bu baax a baax pour gis ne ñoom it ah, bokk nañ ci lépp loo xam ne ab dogalin la bu ñoo def fii ci biir réewi Gambia docteur euh, Ismaila Cissé koo xam ne nag jàngalekat la si wàllum politique te ñu ràññee ko si euh, xeexal euh, lii di yelleefu doomi aadama moom nag gërëm nañ ko lool si taxawaay bu dëgër boo xam ne nag mu ngi ko def si biir réew mi ak africa lii nag nekk na mbir boo xam ne ñu ne taxawaayam nekk na lu am solo pour gis ne Afrika ak Gambia yokkute am foofu noonu ak yu yu mel docteur Cissé nag tàbba nañ ko lii di li ñu ooyee Pan African Humanitarian Awards lii nag ah, mbir la boo xam ne at bu ne lañ koy defte nag ah, dañooy seet ah, nit ñoo xam ne nag ràññeeku nañ si mbir moo xam ne nag di taxawal lii di Africa si mbir yu demee ni lii di aada ak lii di jàmm ak yokkute pour mu am fële ca fii si Africa si waxtaan bi mu am ak Paradise TV nag moom docteur Ceesay wax na ne moom taba bi si moom daal dañ koy ñaare pour mu gën a yokk liggéeyam ràññeen nañ suñ liggéey euh, lii di bitim réew waaye nag euh, lii mbir la boo xam ne nag nekkul ne euh, dañ ko gàñe rek waaye nag daf ñooy ñaax pour ñu gën a liggéey li na lim firnde rek mooy nit ñi dañ am yaakaar si ñun te gis nañ loo xam ne nag ñu ngi def te nag ñu ñoo ñaax pour ñu gis ne ñu continuer di liggéey lii nag société suñ jëngatu si wàllum askan bi ka liggéey boo xam ne nag ñu ay jàngalekat lañ ka nekk nit ñoo xam ne nag ay gestu tam dañ ko dee def si mbir moo xam ne nag muy liggéeyi gox te nag ah, jóg nag pour dooleel lii di ndaw yi foog naa ne lii daal lim firndeel mooy ah, gis nañ suñu liggéey xam nañ ne ah, ñu ngi def suñ liggéey waaye nag mu ngi mel ni tam ñu ngi ñoo ñaax pour ñu gën a liggéey mbir mi nag tàbba bi nekkul ne mbir la boo xam ne nag man dama ko yelloo waaye dama foog ne daal mbir la boo xam ne nag dafa may gën a ñaax pour ma gën a liggéey dinañ continuer yéen ak euh, xibaar ya ñu dem fële ca euh, takk takkader yi fële ca euh, Cameroun téye nañ wala sade fanq nañ ñetti taalibe yoo xam ne nag dañ leen tiye woon gannaaw ñoom bi ñu defee ab. bi ñàppoo si kaw euh, benn dëkkuwaay boo xam ne ñii di rebelle yi ñu xam leen si separatist fighters euh, foofu lañ nekk euh, si loolu nag juróom-ñeenti ndaw xam ne nag ay taalube lañ ak seen teacher teewoon nañ leen si benn school boo xam ne nag mu ngi kumbi talaata bi si suba. kii di journaliste Peter Tha moo nekk di seetu wàllum jafe-jafe bi nga xam ne am na foofule sa Cameroun wax na ne lu toll si juróom benn ndongo dara ak benn jàngalekat ba tey kenn xamut fan leen nekk xibaar bi mu ngi dellu di feeñal ne ñi nga xam ne ñooy séparé si place bi nga xam ne foofu leen nekkoon yàqal leen ko gannaaw bi nga xamee ne am na ab fetalante bi fa amoon si seen diggante ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi foofule sa Cameroun North ak South West provinces nag place la boo xam ne sonal leen fa séparatiste bu baax a baax si at bi nga xam ne moom leen génn. ñi nga xam ne nag ay waay leen rek si mbedd bi amee seen ay gànnaay wax ne ne xale yi ak ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi bu si kenn demaat si béréb bi jàngalekaay fekk nguur bi taxawalut li nga xam ne mooy référendum pour jox leen ñoom itam seen indépendance maanaam ñoom mi noonu tam ñu moom seen bopp. ñaxtu yi nga xam ne nag mu ngi lim nekk di jur saa su nekk rek mooy ab xeexoo ak gaañoo bu métti. li nii nag am na gannaaw bi nga xamee ne lu toll ci juróom-ñetti fukki xale feeñ neen gannaaw bi nga xamee ne ñoom tam tegoon nañ leen ay loxo. juróomi nit euh, gaañu nañ euh, si loolu sade ak euh, taalibe boo xam ne nag waa Italie la moom téye nañ ko si liñ foog ne al sabab mu daanu si bërëbu jaayeekaay bu nekk fële ca Chakama si Kilifi County. si talaata bi juróom-ñetti waxtu ci ngoon ci la woy fipp yi daanu ci kaw marché bu nekk ci gox yi Makongeni ñu dëkkee ci boor boobu ci alxemes bi wax nañ taskati xibaar yi ne lu mut juróom-ñetti fukki way fupp ñoo fa yegg ñu ngi sol uniforme yi der yi ñoom naka daanu nañ si kaw gox bi ñu naan kalanaaku laalu juróom-ñetti waxtu si ngoon ba ñu yeggee naka dañ commencé di sànni ay feteel ca kaw ci biir loolu ñu jëlaale fa benn jigéen jigéen ci nga xam ne mu ngi toll si juróom fukki at ak ñett bayeekoo Italie ñëw foofu pour dimbale waa gox gi moom naka lañ jël yóbbuwaale ko naka mu nekk naqar lool ci boor boobu noonu jigéen ji naka ñu ne mu ngi jëloon néeg si fii ñu naan Chakaama Trading Center Eh, jërë ngeen jëf eh, mbokk yi ñu kentine bente di leen fàttali ne Paradise TV la eh, seen xibaar yi si wolof ngeen ànd ak Alieu Fall kilifa yi fële ca Libya ñoom daal jël nañ ay bal ay bali élastique ak lii di gaz pour forcer nit ñi pour ñu ñu toll si lu ëpp juróom-ñeent fukki nit ñoo xam ne ay daaw la ay daaw laaxu lañ xam ne nag dañ bañ a wàcca gaal boo xam ne nag mu ngi teer fële ca Misrata gaal bi ñu oyee Panama flag moom sax rek moo leen. Euh, xeetali euh, gannaaw bi gaal biñ duggee mooy euh, moom daal dafa bëggoon a lii suux fële ca géeji Libya bi te gannaaw loolu sax si la lañ indi fële ca Misrata gannaaw bi ñu eggee foofu fukk ak ñeenti nit si si ñii ñoom daal pare nañ pour wàcca waaye nag si loola dem na ba ñeent juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo xam ne nag ñoom dañ bañ a wàcca lii di gaal gi ñu bari nag ñoo boole seen loxo nekk benn groupe bi nga xam ne moo attaque gaal bi ni le di leen fetel ay bali roba jël li nga xam ne tam mooy tiyaga sànni leen ko pour gis ne rek ndaw yi nga xam ne ñu ngi si biir gaal bi génn nañ fa kii nga xam ne nag moo feeñal li moo nekk Tawfiq SK moom mi nga xam ne nag moo nekk commanda bu Central Region Coast Guard bi foofu foofule sa diggante Libye ak Italie gannaaw bi nga xamee ne mu doon am waxtaan ak Reuters niki talaata. si biir fukki fan bii nii nag ñi nga xam ne leen teg loxo ñu doon jël yooni ndox bi pour dugg foofule sa Europe wax nañ ñu ñoom ñàkk seen bakkan moo leen gënal ñu delluwaat si place yi nga xam ne dañ leen fa di foofu foofule sa biir Libya ñeneenti fan si gannaaw nag ñi nga xam ne ñu ngi woon si gaal bi di dem foofu foofule sa Italie indiwaat nañ leen si place bi ñuy wax Misrata. ñeneen ñu bari nag wax ne ne ñoom nekk nañ ñoo xam ne den rëcc si ñi nga xam ne la ñuy ooyee human traffickers foofule sa biir Libya muy ñii nga xam ne nag dañoo jël nit yi denc leen di laajte xaalis pour ñu bàyyi leen ñu dem ñeneen ñi di wax ne dundal leen lu nekk ci place yi nga xam ne sax nguuru Libya moo ko taxawal pour denc ñii nga xam ne dañoo bëgg a aw yooni gannaaw bi fale sa Libya nag am nañ benn bunt liggéeykaay boo xam ne lu tax mu jóg moo nekk pour taxaw ay tànk yu dëgër gis ne du fa ñëwaat pour awee yooni gannaaw bi maanaam yooni ndox bi pour dem Europe kii nga xam ne nag moo jiitee kuréel boobu taskati xibaar yi defoon nañ ay jéego pour wax ak moom si pour waxtaan ak moom si gannaaw si wàllum ñii nga xam ne ñooy jël yooni gannaaw bi lu ñoo foofu foofule sa biir itali waaye antu wutoon foofule sa Libye nag géej bi nga xam ne moo fa nekk nekk na place boo xam ne ñii nga xam ne ñooy aw si yooni gannaaw bi faral neen di fa demee torop ñoom ñu bari nag li tax ñuy jël yooni gannaaw bi bari na ñii nii ñàkk moo tax ñii nii xeex ñii nii nag dañoo bugg dem rek pour dëkk fii nga xam ne mooy Europe. si at bi nga xam ne nag génn nañ ko itali jël nañ ay tànk yu dëgër si wàllum lii nga xam ne mooy dem yoon ni gannaaw bi tax na ba nga xam ne ñii nga xam ne ñooy liggéeye si beneen boor bi foofu la di Libya di jël nit di leen dugal si gaal yi nga xam ne gaal yi rooba la bàyyi neen ko loolu taxi na tam gaal bi nga xam ne moo daan dem tase ak ñii nga xam ne ñooy aw yooni gannaaw si diggi géej bi pour jàppale leen tam mujjee ni ñoo bàyyi di ko yóbbu. jërë ngeen jëf mbokk yi euh, teewle leen rek euh, ñu indi leen euh, bàkk bi gannaaw bàkk bi rek ñu seetal leen xibaar yi njula gi jërë ngeen jëf mbokk yi ah, léegi ñu xibaar ñi seetal leen ah, xibaar yi ah, njula gi United States nag mooy Amérique ñoom nag bara joxoon nañ baaraami tuuma ab kuréel boo xam ne nag mu ngi diggante iraan ak lii di Russia ne ñoom ñooy yónni ay millions yi barigoy diw fële ca Russia te sax si loolu sax de ñu ne ay millions yi dollars xam na la si xaalis yi Amérique dañ ko dee yónnee si ay kuréel yuñ xamee si Hamas ak Hezbollah lii nag nekk na mbir boo xam ne de US Treasury ñoom daal si bataaxal boo xam ne nag gaaral nañ ko si talaata gi ñoom daal euh, dugal nañ si euh, benn ndaw yi Syria koo xam ne nag moom euh, mu ngi am kuréel compagnie boo xam ne nag mu ngi Russia ne moom mooy jël diw yoo xam ne nag di ko jaarale si ay gaal di ko yóbbu fële si fële ca Syria te ñi ko dee jàppale mooy kuréel yoo xam ne nag nguuri Russia moo leen moom Syria ñoo daal di jàppale euh, jàllale xaalis boo xam ne nag ay millions la si ay dollars euh, pour yónnee ko ñi di Hezbollah ñoo xam ne nag euh, ñu ngi yëngu comme political party nguuri Libanon bi te nag ñu ngi yëngatu comme ay bañkat ñu ngi mel ni daal Hamas ñoom niñ mel fële ci Palestine si atum 2014 gaal yoo xam ne nag ñoom ñooy yóbbu li di diwi Iran bi ñoom nag commencé nañ di noba diw yoo xam ne nag ñu ngi ko yóbbu fële sa Syria Treasury Department ñoom daal wax nañ ne li di State Department commandment euh, ñoom daal euh, li ñu wax rek mooy US euh, Coast Guard bi mooy soldaari géej wi nekk euh, fële ca euh, Amérique ñoom daal euh, génne nañ bataaxal boo xam ne nag di yedda ñoo xam ne nag ñoom yëngu si wàllum géej bi ne ay daan yoo xam ne nag teg nañ ko si gaal ñoo xam ne nag ñoom ñooy yóbbu diw fële ca Syria mbir moo xam ne nag tuuma bi nag mu ngi wane ne Russia ñoom ñu ngi dugga pour gis ne ñu doog loo xam ne nag mooy nangutoo yoo xam ne nag mu ngi seen diggante ak lii di Syria foo xam ne nag lii di Washington ak Moscow ñoom nag fu mu nekk nii daal ñoom li ñoo gisee du dinañ lay rek rek yi yaram ak bitim Your smile. Take it with you wherever you go. Wear it. Share it to welcome old friends or meet new ones. Brussels Airlines, we go the extra smile. Tú le la boy. Boy, cuune bakka culaas di programme yi jongante dem bi leen Paradise TV indil juróom-ñetti bawda rek leen soxla si ñeneenti gox yi di Banjul KMC Sukuta ak Brikama ñi bàyyeekoo ci campé grand place yi ak vuu yi ngir ñu tànne si juróomi gox yi kan moo si doon seen bawda ku bëgg a bokk ci pox mi koolal 313 8070 wala 2092 110 Paradise TV ak cuune bakka gannaaw yéegle yéebaane rek ñu seetal leen xibaar yi tàggat yaram Brazil nag daan nañ ñii di Cameroun benn bal si dara si match yi xaritoo boo xam ne nag ñu ko def si talaata gi li nag mu ngi xew sax gannaaw bi capitaine yi Brazil mooy Neymar moom gaañu na sax si match bi gannaaw match bi amee juróom-ñaari minute si loolu sale kii di Richarlison moom daal góol bi mu dugal moom moo ko defal li Brazil seen juróom-benneeli gagné boo xam ne nag def nañ ko te nag euh, si euh, juróom-benni match yoo xam ne euh, play nañ ko seen kenn dugalul leen góor lii nag mu ngi def cest à mooy coach bi mooy Tite moom nag mu ngi mel ni depuis World Cup bi bi mu jeexee kenn dugalu leen bë góor Brazil amoon nañ tuuti njaaxare ba Neymar gaañoo ba daal di génn ki nga xamante ne mu ngi playal Paris Saint-Germain dafa daal di soxna génn ci li nga xamante ne mooy match bi gannaaw bi nga xamante ne yaakaar na ne daal gaañu na gaañu bu métti Richarlison moom moo daal di dugal pour place am moom daal moom moo daal di dugal benn góol boo xamante ne moom la Brazil soxloon pour duma ñooñu noonu di eh, Cameroun ñu gis ne nag ci second half bi ñaari teams yëpp dugal nañ ay players yu bëree bëri ba loolu tax na ne game bi bi nag lii doon na juróom benn li ndam boo xamante ne nii Brazil am na ko gannaaw bu ci World bi passé waaye nag ñàkk bi tax na ba Clarence Seedorf nekk kooji Cameroun moom nag am na jafe-jafe yu ma sëg ci team bi gannaaw bi nga xamante ne nag lu toll si juróomi game yoo xamante ne ni daal benn yoon lam si win mu daal di dugal ñaari góol Euh, Ghana nag euh, dañ war a xaar euh, dinañ toogaat xaar ba seen mujjanteeli jongante pour gis nag ñu mun a dugga si si semi final bi si jongante boo xam ne nag di di jigéen ñi ñoo koy def si lii di li ñoo ay Africa Women's Cup of Nations lii nag loolu mu ngi xew gannaaw bi leen Mali daane ba ñaari bal si dara lii nag si benn ngeen jégal ma lii nag mu ngi xew fële ca Accra si talaata gi. Basira Touré moom moo dugalal Mali seen ñaari góol yi ñu soxloon seen diggante ak Ghana Ghana nag Elisabeth Ado moom moo leen dugalal maanaam duma bi nag tax na ba ñi nga xamante ne moom mooy Ghana ñu féetee ñetteeli paas nag ci groupe E gannaaw bi nga xamante ne am na ñetti point si ñaari match ñu daal di yem ak ñoo ñu di Mali. gaana bu doon deen win seen maaj bi dina leen doon gën a jox yaakaar pour ñu àgga nag ci 2019 World Cup bi nga xamante ne ñu ngi ko war a def foofu noonu ci France waaye Mali nag ñoom nekk na ñoo xamante ne defee nañ bu baax a baax waaye nag seen counter attaque yi nekkoon tamit am solo ba loolu tax na tamit nag ñooñu de Black Queens di Ghana mujjewu ñoo am ndam lii Ghana nag defoon neen ñaari ceeñi si seen match boo xamante ne ñu ngi ko win seen diggante ak Algeria daal gis nañ ne seen ceeñi si ñu def yëpp doon na loo xamante ne nii daal Mali daal dinañ leen téye bu baax a baax jëf mbokk yi dinañ ànd ak yëgle su ñëwee rek ñu seetal leen bitim réew. Do you know that when you replace incandescent bulbs with LED energy efficient bulbs, you save energy? Replace all incandescent bulbs with LED energy efficient bulbs. Whenever you save energy, you save money. kay leen ñu jokkoo social media bi ngen wécceeg ñun seeni halat ci Facebook PTV Gambia Instagram PTV Gambia Twitter PTV Gambia YouTube DTV Gambia mën ngeen a download app bi jaare ko ci Google Play Store am ko ci seeni mobile PTV ñooy ceeñeeri Gambia jërëjëf mbokk yi gannaaw euh, yëgle yi rek ñu indil leen xibaar yi bitim réew euh, kii di président Amérique ñu xam ko si euh, président Donald Trump moom daal laaj nañ ko pour mu déggal ndax kii di doomi buuri Saudi bi ñu xam ko si Crown Prince Mohammed bin salmaan ndax nag moom am na loxo si faatum kii di taskati xibaar bi ñu xoolee bi ñu amee si Jamal Khashoggi ñi nag républicain si ak démocratie seen njiiti ñoo xam ne nag ñoom ñoo nekk. si Senate bi di saytu diggante Amérique ak bitim réew si talaata gi nag ah, bindal nañ ko lii di bataaxal ah, di laaj pour ne ñu gestuwaat ah, mbir mi ñaareelu yoon. Mr Donald Trump moom naka gën naa dëgëral diggante US ak Saudi Arabia ginnaaw ba waa ji di Mr Khashoggi ba ñu jëlee bakkanam foofu sa Saudi mu doon ñaareeli fan ci weeru octobre si bataaxal bu feeñ ci talaata bi Mr Trump moom wax na ne ki nga xam ne mooy Crown Prince bi muy doomi buur bu war a toog ci toogu bi mu ne mën naa am xam na naka la reyee rayee Mr Khashoggi mën naa ñàkk amit mu continué di wax ne CIA ñoom naka nekkuñ di def seen kéemtulaay kàttan pour gestu lan moo waral dee ji jërëgéen jëf mbokkee lii la ñu waxtu meyoon rek di leen uh, jaajëfal waaye balaa ñu tàggatoo rek uh, ñu jukkil lii di boppi xibaar yi article 19 si dimbale European Union ngénte na projet boo xam ne dafa jóg pour jàppale nit ñi ci seen axa ak yelleef juróom-ñeenti fukki nit ñoo xam ne rek ay daw làqu lañ uh, bañ nañoo wàcca lii di gaal gi dañu nag dañ leen forcé ak lii di tiyagas ak ay bal si tàggat yaram Brazil dóor na Cameroun benn bal si dara si match xaritoo si match boobu nag euh, Brazil ñàkk nañ seen capitaine bi si gaañu muy neem. si xibaari bitim réew président Donald Trump laaj nañ ko ndax kii di doom yi doomi buuri Saudi am na loxo si faatu kii di Jamal Khashoggi ok euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi lii la ñu waxtu mayoon rek di leen jaajëfal euh, di leen gërëm di leen sant si toppa bi ngeen toppa lii di Paradise TV kon nag di leen jox di daje suba incha allah jërë geen jëf.